ñu tàllal ko suñu yaxu di ñaan buur bi tabaraka wa taala mu may ñu kendaluk jàmm ndax moo ñu ne bokk na ci sama xéewal yama leen di xéewalal nelaw ba ngeen di nelaw ci guddi tegtal bi ba ñu demee xool ci téere alquran ba ñu buur yàlla wàccal suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca suratu naba dinañu gis buur yàlla mu di ñu joxoñ climat ba ñuy duppee guddi waxtu wi ñu nekk nii moo ngi nii di commencé tàggatoo ak ñun muy wàjja tàqale kook ñun waaye weneen kilima ba ñu naan naxaaru di kilima wu bëccëg muy doog digmal si nii ci kanam tuuti guddi ba yi waaja tàggatoo ngir tàqale kook ñun guddi boobu la yàlla joxoñ nañu wa na leyla libaasan man yàlla maa leen defal guddi mu doon mbàjj ba ngeen di muurloo di ci suturlu waaye ma defal leen ci guddi woowu wa jaalna kom subaatan maa leen defal nelaw ba ngeen di nelaw ci guddi woowu mu nekk dallukaay bi nga xamante ne feneen fudut ci waxtu woowu walla leneen lu dut nelaw woowu du ngeen ci am dallukaay bi ni mel kon bu dee yàlla daf ñooy joxoñal ci suñu alquran alkarim téere bu tedd bañu yore te ñu wàccee suñu yonent bi mu war a nekk tex bi nga xamante ne mu war a nekk source wu nga xamante ne lépp lu julit bi di jëfandikoo walla mu di ko melo foofu la war a fara war a jëlee tegtal yay wane ne moom daal téere bi di alquran mooy la muy référé wu su booba jullit boobu mooy kiy sant xéewalu yàlla ci jëmmam waaye mooy kiy sant xéewalu yàlla ci nekkinam ba tax na amul dara la muy jëf walla mu di ko wax wala mu di ko meloo lu dul dina dellu ci téere bu mag boobu di alquraanul karim fa ko yàlla joxoñal ne foofu moo war a nekk sa source moo war a nekk sa référence moo war a nekk fa nga war a référé wu su ko defee jullit boobu bu dee foofu mooy doon istinbaat mooy doon ballukaay fa muy ràññee la mu nekkee wala la muy wax walla la muy doxalee ci dundam kooku moo tegu ci yoonu raay bu jox xoj boo xamante ne téere boobu yàlla wàccale yenent bi mu jox jullit ñi ndigle ne na ngeen ko jël mu doon seen référence na ngeen fay niitoo téere boobu lañu yàlla wax ne maa leen xéewalal xéewal ba ñu jógee ko ci waxtu su néew ci ginnaaw mooy xéewalu nelaw bu ñu yàlla wàcceel mun nañu ci téere bi ci aaya ba nekk ci suratul naba di abasa eh, amma yatasaaluun bur yàlla ne ñu wa jaalna nawmakum subaatan maa leen defal nelaw mu doon dallukaay wi nga xamante du ngeen amee dallukaay wangeen di amee ci nelaw ci feneen walla ci neneen lu dul ci nelaw kon yow jullit bi nelaw ba ngay nelaw yàlla palaasel na ko ci alquran ngir nga war a mën a xàmmee xéewalu yàlla ci sa jëmm ci téere alquran boobu noonu nag mbokk yi ci kiñ ko wàccee mooy suñu sang bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi moo ñu wax ni xéwal ba ñu yàlla joxoñal ci aaya bi ak aaya yenroo ni aaya bañ leen jàngal ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñu képp ku yàlla wërsëgal nga jëfandikoo xéwalu yàlla woowu di nelaw boo ci noppee bu dee bëgg nga ñu bindal la nelaw ba nga doon nelaw comme ku doon jaamu yàlla ñu bindal la ci yiw jamono bi ngay waaja suubu ci nelaw bi na nga ne bismika allahumma amuutu wa ahya boo amee neneen na mën li wutik lii te yenent bi joxoñ ko mu jàngale ko ci sunnam nga jëfandikoo loole moo ne buur yàlla maa ngi làqu fa yow yàlla nga ma aar bu ma suubu ci nelaw ba may waaja def ni waaye maa ngi sàkku fa yow yàlla yàlla nga ma may sécurité bu mat sëkk bu mu jaaree ci nelaw bi faatu yàlla ngam ma may sécurité bu mat sëkk kaaraange ba nekk fajow yow te mu doon kaaraange ju matale yàlla nga ma ko defal waaye boo ma mayee ma dunduwaat yàlla nga ma may kaaraange ba ma ñaan bi léegi sécurité bu matale ba nekk fa yow yàlla nga ma ko defal ñu ne yonent bi nee na nii la jullit bi di waajale jamono bu muy waaj nelaw na ñaan wax bismika allahumma ci sa tur yu sell yi sama boroom amuutu ca lay làqatu bu ma faatoo waa ahya ca lay wéy di làqu bu ma nekkee di dund kon ma lay ñaan yàlla nga ma may sécurité bu ma faatoo ak bu may dund ñu ne bu la yàlla mayee ba nga ximmiliku ci nelaw woowu mu delloo la sa ruux nga amaat beneen sens yàlla dundal la ci weneen bis yenent bi nee na boo yeewoo ci nelaw woobu nga am occasion pour dundu da nga war a delloo yàlla njukkal ne ko alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma buur yàlla mboolem xeetu cant yu kawee ñeel nañu la yow yàlla ndax yaay buur bi ma faat ci nelaw yaay buur ba ma taqale ko ak sama ruux jamono bu may nelaw waaye yaay buur ba ma delloowee sama ruux jamono bu ma yeewoo ci nelaw waaye yaay buur bi nga xamante ne bu ma noppee ci dundu àddina bi ci yow dong lay delloo subhaanahu wa taala ba na lii bu ko jullit bi di wax jamono bu muy waaja suubu ci nelaw mu dënk jëmmam yàlla mu jaaree ko comme naka yonent bi tegtalee sallallahu alayhi wa waaye saa yi mu yeewoo ci nelaw mu defee ko comme naka yonent bi joxoñal alayhi afdalu salaatu wa azka taslima ñu ne julit boobu nelaw boobu mu doon nelawut kat dinañ ko ko bindal comme ku doon jaamu yàlla ndax yiw dong la ci kon ana kan mooy nelaw nelaw wi ni mel ana ku koy defe comme na ko yonent bi tegtalee sallallahu alayhi wa sallam bu dee loolu nekk na ci anam bi ngay nelawee ñu ne yow sa nelaw de mënees nañ koo gam-gamle kom kuy sàkku yiw ci na yonentu bi ne noonu la jullit bi di waaj a nelaw waaye anakan moo du def lii anakan moo xamut la yonent bi joxoñ ne jullit bi kat nii la war a nelawe bu yeewoo nii la war a wax ana ku xamut lii ana ku ko du defee nii kooku lañ ne bu ñu mayee nopp ci réew Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji ci waxtu wi kooku la ñu ne bés ni ki tey na nga jëlee bind bi ci waxtaanu fajar bay jaar ci réew Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bi su ko defee nga gànnaayoo la nga xamante ne fa ngay sàkkoo yiw bi nga xamante ci tàmbali nelaw bi nga koy amee ak ba nga nelawee ba noppi nga defee ko comme naka yonent bi jàngalee ñu bindal la yiw ci nelaw ma nga doon nelaw yan nañu ko yàlla yombalal yan nañu yàlla yombalal tegtal ba yonent bi joxoñ ne julit bi nii la war a duggee ci nelaw waaye bu mu yeewoo nii la war a wax ci jamono bu ko yàlla may xewal mu war a dund beneen bés yan nañu yàlla tàggatal suñu xol ak suñuy cër jëmale ko ilaa ma yuhibbuhu wa yarda jëmale ko ci lépp lu yàlla bëgg mu doon la mu gërëm amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot yéen a ngi fàttaleku démb ñu ngi doon waxtaan ki yéen ci melokaanu xol ya yàlla tudd ci alquran démb ñu ngi yemoon ak yéen ci xol bi nga xamante ne mooy xol bu yàlla nattu mu yore feebaru xol mu yore feebaru xel ba nga xamante ne weddi yàllaa ko tax a jóg ak mooy yàlla la ko yàlla tëkku ci aaya alquran bañ leen doon jukkil sànq ci suratul baqara su ko defee yàlla nee xol woowu de kooku la waajalal ci jëmm jooju mbugal yu mitti ya ko wara a xaar keroog bés pinc bu dee tuubul waaye tey ñu fas yéene leen dégtal beneen bunt bu bees bi nga xamante ne ah mbokk yi bunt bi kat war nañ ci war a mën a jànge aloo bu bëri bëri bëri ndax daf di phénomène bi nga xamante ne dafa xew lu ko waral kenn xamu ko nag waaye amaana bu ñu xuusandee ci alquran ba ñu buur yàlla tëral ci kaw suuf si mu ne ñu lii mooy téere bi nga xamante ne jox naa leen digal ngir ngeen xuus si téere bi ngeen jëlee fa la leen di njariñ waaye ngeen xàmmee fa lépp la leen di lor ci seen banneexu bakken wala pexe mu seeni noon di seytaane na muy dikkee bem leen womat jëmale leen ci lépp loo xamante ne loraange dong ngeen ci jëlee kon dem leen dugg ci téere alquran woowu ngeen xool tere yi nañ fa nekkee ngeen mën kaa moytandiku waaye ngeen xool ndigle yi nañ fa nekke ngeen war kaa war a mën a jëfee ci anam ba mu gën a yombe ci anam ba ngeen ko mu ne te man yàlla maa leen téralal anam bi ci téere bi jox ko sama yonent bi sallallahu alayhi wa moo ne mbokk yi du ñàkk am ko laaj lu waral lii jëmm ji di waxtaane nii dañ naan kooku ne appareil bi nga yore sa loxo ki ko defar am na katalak bum ko mooñaale mu ne la appareil bi di catalogue bi agenda bi mooy la fa nekk ci ay xeetu tere ya appareil bi bañ waaye mu ngi ci catalogue bi ay ndigle yi nga xamante ne mooy tax appareil bi yàgg ci sa loxo appareil bi bañ na ndox appareil bi bëggul lu tàng appareil bi bëggul lay maas nga jegel ko ak li ni mel loo xamante ni day yàq appareil bi moo ne lu tax ñu di la moytandikuloo sens interdit ba nga xamante ne appareil bi nga yore sa loxo moo xam téléphone la moo xam beneen appareil la lu tax ñu di la moytandikuloo ne appareil bi bëggut yii ñu la bëgg a moytandikuloo nii ndax jëmm appareil bi naam sophistiqué na lool am na importance waaye dañoo bañ xaalis bu takku bi nga jël duggal ko ci njigu appareil bi xaalis boobu daldi di naax saay ngay dund ak xol bu naqari loolu tërëneenu doomu aadama la ci dund ba ñuy dund nii wala ci doxalinu dund doomu aadama waaye léegi ana moo bind doomu aadama woowu defar appareil bi jox la fiche di notification bi nga xamante ne lépp lu appareil bi bañ bind na ko ci lépp lay tax appareil bi gudd fan sa loxo bind na ko ci ci bind kookee jox ko xam-xam bi ni mel kooku tamit yow la jox valeur bu kenn amul ci mbindaafoonam yi yàlla la bind yàlla mi la bind yow doomu aadama la jox valeur bu mu joxul jinne yow doomu aadama la jox valeur ba mu joxul benn bindaafoon ba tax na valeur boobu mu la jox yow doomu aadama bi borom bi tabaaraka wa bëggul nga nekk fi di lor sa bopp wala ngay dugal sa bopp ci ay mettit walla ci ay tolof-tolof ba tax na mu indi la catalogue bu mel ni alquran sens interdit ya nga xamante ne moom buri yàlla bëggu ko sopp ko gërëmu ko mu def ko ci katalog boobu jox la professeur bi nga xamante ne moo ñëw di la jàngal catalogue boobu ana lan mooy sens interdit yàlla ana lan mooy la nga xamante ne yàlla fala leen xàllil ne na ngeen fi jaar na ngeen fi aw garde foo yéeg sens interdit beeg ah ak yi ni mel alquran ba yàlla jox yonent bi fala ko rëdd yenent biñ ko jox kooku moo ñu ko jàngal sallallahu alayhi wa sallam tax na ñu bëgg dégtal leen lenn loo xamante ne mu doon phénomène bu tiis phénomène bu daw yaram phénomène bi nga xamante ne naam yàgg na sax ci àddina waaye jamono ju ñu toll nii na mu mel mbokk yi nañ leen delloo ci xel yi nañ leen delloo ci xel yi ñu jëfandikoo lañu suñu téere bi digal laalla allahu sa yajcalu llahu baada usrin yusra amaana yàlla dina def gannaaw jafeñ-jafeñ yañu nekke nekkee ba ñu delloowee ci ndigle ya alquran digal te yonent yu jàngale ko sala salaam buur yàlla mën naa soppi jafeñ-jafeñ yooyu wuññeeku mu nekk bànneex ba ñuy dund mbokk yi yàllaa ñu digal ne na tukki ci kaw suuf si yàllaa ñu digal na ngeen def tourisme yàllaa ñu ne na ngeen demalante ngeen dikkalante yàllaa digle ne tukki leen ci kaw suuf si waaye buur yàlla moo ñu ne bi léegi wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima bu leen di rey seen bopp bu leen xaru bu kenn rey boppam bur yàlla ki leen yërëm la moo ne bu ñu demee xool ci suratul an'am ci aaya onze bur yàlla mu ngi naan qul siiru fil ard thumma nzuru kayfa kaana aqibatul mukadibin bur yàlla moo ne yonent bi qul waxal yow sama yonent bi siiru na ngeen doxantu na tukki fil ard ci trottoiru suuf si waaw summa gannaaw si nduru ngeen xool kayfa kaana namu nekkee aqibatul mukaddibiin mujjantelu ñafi nekk di weddi yàlla ci xéwal yaleen yàlla baaxee waaye anam ba yàlla ne qul fil ard waxal sama jaam yi nañu doxantu ci kaw suuf si topp ñu xool na mu nekke woon mujjantilu ña fa nekki di weddi xéewalu yàlla mujjanteelu ñu fi nekk di moy yàlla di weddi xéewal baleen yàlla xéewalal na yàlla jëflanteeg ñoom na seen traas mujj na seen melokaanu mujj ndegem yàlla moo ñu kachel visa bu toll ni ne leen ne na ngeen tukki ci kaw suuf si ngeen xool melokaanu ña weddi buur yàlla mais ànd loolu moo ñu ne waaye bu leen ko defee ci anam ba tax ngeen di loru bu leen ko defee ci anam bay tax ngeen faat seen bopp du anam boobu laa bëgg ngeen defee ko nii de yàlla waxu ko ngeen defee ko nii yàlla waxuñu loolu de dafa ñu ne qul wax qul waxal xul wax leen ne siiru nañu doxantu nañu takk seeni bagaas nañu yenu seeni bagaas ak seeni jumtukaay fil ard ñu doxantu ci kaw suuf si summa nzuru ginnaaw si ñu xool kayfa kaana na mu nekkee woon aqibatu mujjantelu yu nga xamante ne almukadibiin ñaweddi woon xéewalu yàlla kon ndegem buur yàlla moo ñu permettre ngir ñu tukki ci kaw suuf si ngir ñu xool mujjantelu ñi fi nekkoon ñu di ña nekkoon ci suuf si di mooy yàlla ci ay xéewal yaleen buur yàlla xéewalal waaye buur yàlla anam bum ko waxee ak tey jii ñun lañu gis ne noonu la nit ñi di tukki lenn ci nit ñi bokkul ak la yàlla tegtal buur bi tabaaraka wa taala te moo ne moom buur bi tabaaraka wa meñu ne qul siiru fil ard ne leen ñu doxantu ci kaw suuf si summa nduru topp si ñu xool kayfa kaana aqibatul mukaddibiin mujjantelu ña fi nekkoon di weddi yàlla ci xéwal yaleen yàlla defal na yàlla jëflantek ñoom ba seen mujjantil bi melokaan ba tax yow jullit bi danga war a doxantu ngir dem xool seeni melokaan yoon bala yàlla xàllil ne nanka defe noonu ak ñun tey jii nañuy tukki bokkul ñun tey ji anam ba ñuy tukkee mbokk yi buur yàlla moo ko njëkk kondam ne ci alquran mu ne ñu walaa taqtulu anfusakum bu leen di rey seen bopp wala taqtulu anfusakum bu leen di rey seen bopp bu leen rey seen bopp inna allaha naka yàlla kaana bikum rahima ki leen la inna allaha naka yàlla kaana bikum rahima ku am yërmande la ci yéen ca surtu nisa ñu ne mufassiruuna yi dañ ne wala taqtulu anfusakum ay wala yaqtulu baadukum baadan fa tuxliku anfusakum moone bu kenn di fexeel moromam ngir sànk ko rey ko yow mi jël nit ñi di leen dugal ca waruwaay wi nga xamante ne wóor na la ne amuloo ci benn xam-xam ba xam fa nga leen di jëmee dinga nga ñoom walla déet yalla ne bu fi nekk di rey ñenn ñi reyaale sa bopp nga alak sa bopp alakaale ña nga nekkal ci waruwaay boobu moo tax mu ne ay loolu mooy wala yàqutul bu kenn rey baadukum baada keneen bu ñenn ñi di fexel rey ñeneen ñi chaîne trajectoire silsila bi nga xamante ne coxeur beeg capitaine beeg ki leen di fattak néeg ba chaîne boobu noonu bu kenn dugg ci chaîne woowu ngir comploter ci ñeneen ñi nga xamante ne tukki rekk a nekk seen bopp te wóor na la ne nañuy jaaree ak kilin di yóbbu wóor na ko wóor la yow mi nekk ak sóor walla yow mi bokk ci convoi boobu amuleen ci dara la leer ne fa ngeen di jaarale ña ngeen bëgg a yóbbu dinañu àgg wala duñu àgg yàlla ne déet bu leen def lii bu kenn bokk ci seen bi la koy firndeel ne nit waruta bokk ci seen bi ndax enquêteurs yi bu ñu defee seen enquête bu ñu jàpp kenn dañ ko naan léegi anakan moo nekk ci ginnaaw la nga nekkee nii képp kuñ ci taq képp ku ci laale nga takk ci dañ lay teg ci kanamu yoon moo tax lu jiitu enquêteurs yi di enquête sen enquête chaîne ba ngeen nekkee yàlla mooleen leen ko njëkk tere moo tax mu ne wala yaqtulu baadukum baadan bu kenn bokk ci comploté bi nga xamante ne da ngeen di alak seen bopp wala ngeen alak ñenn ñi moo tax mu ne fa tuxliku anfusakum ngir ngeen alak ngeen sànq seen bopp bu kenn dugg ci seen boobu bu kenn installe groupe boobu ba nga ci am ay ay ñi ngay associé bu si kenn dugg ba nga ci am ay associé moo ne bur yàlla nee na fa tuxliku anfusakum ngir ngeen lor seen bopp ci li nga xamante ne bi rakbaatin muharrama wa maasiyatin ngeen di lor seen bopp ci li nga xamante ne moom la buur yàlla xaraamal ak ngeen di ko jëfe ci lépp lu nga xamante ne mooy yàlla moo ko lal yàlla ne inna allaha naka yàlla kaana bikum rahiman ku am yërmande la ci yéen bu kenn dugg ci comploté ngir rey ñenn ñi bu kenn dugg ci chaîne ba nga xamante ni ñenn ñi dañ ciy loru ñenn ñi dañ ciy sànku alku ñii seen bakken dina ci loru ñii seen bakken dina ci yem ci la nga xamante ne mooy fondement bi du lenn lu dul la yàlla xaraamal walla la nga xamante ne mooy mooy yàlla dong ko lal bu kenn dugal idéem ci lii bu kenn jege fi ñu koy defee bu kenn nekk ci bërëb bañ koy nase boo demee ba ko xam sax boo ko wili pande nga signalé ña koy def loolu amaana muccal nga bakkante ding ci am yiw bu dee la autorité yi déclaré tamit képp ku ko signalé amaana ñu am lañ la dàmp waaw amaana ñu am ña signalé ñay wara jëf-jëf ju ñaaw wi ni mel ay bakken di ci des population bi di si wàññeeku ay njaboot di si ñàkk seeni njaboot yow mi ko signalé bi autorité yi teg loxo ña bëgg a def la ñaaw li du ñàkk ñu am lu ñu la ndàmpee lu ñu seralee sa xol su ko defee nga soowe ay bakken moo ne ki def lii de kooku mënees nañ ko wax ne yàlla dina ko dugal ci kuréel ba yàlla ne inna allaha kaana bikum rahiman yàlla ki am yërmande la ci yéen kon yow mi signalé ñay waaja faat bakken ci yoonu tukki ba leerul yow it yàlla dina la boole ci ñi am yërmande ci jaamu yàlla moo tax mu fassiru ne fi kulli ma amarakum bihi ci lépp li leen yàlla digal ne bu ngeen ko def ngalla waaye na ko sore wa nahaakum anhu waay lépp li leen yàlla tere ne bu ngeen def lii ci lamaleen leen tere na ko sore bu leen rey seen bopp ndigle la bu ko def ci lépp lu yàlla xaraamal wala lépp lu nga xamante ne mooy yàllaa ka bu ngeen ko def bu leen ci nekk bu leen fa dugal seeni loxo inna allaha kaana bikum rahima yàlla buur la ki am yërmande bu kenn du naa table ci yéen yàlla ku leen yërëm la nga la way bu leen rey seen bopp wa nahaakum anhu waaye nanga sore ci lépp li la yàlla tere ne bu ko jëfandikoo bu ci nekk bu ci dugg bu ko installé loolu xeetu tere la sore ko inna allaha kaana bikum rahiman yàlla buur la ki am yërmande ci yéen kon mbokk yi bu dee yàlla moo ñu ne kul siiru fil ard ne leen ñu doxantu ci kaw suuf si tumma nduru kayfa kaana aqibatul mukaddibiin ñu xool mujjanteelu ñu fi nekk di mooy yàlla ah bu dee yàlla moo ñu jox autorisation bi ngir ñu tukki ba léegi moom yàlla moo ñu jox ndigle bu toll ni wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima ngal la waay bu leen rey seen bopp bu leen wàññi seen population yàlla ki leen yërëm la mbokk yi yal nañu yàlla may dégg topp waxtaan bi jeexut dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi saa ilina mawla jalla wa ala an yajalana min allazina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana allahumma ya rabbi ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir dañu war a jébal béréb bi ñuy joxe xibaar ci nasaraan ñaan yàlla suñu borom yàlla ñu la may dégg ak topp allahumma aminna fi awtanina waslih a'immatana wa wulata umurina allahumma ya rabbi ihfad biladana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin barakallahu li wa lakum fi alqur'ani aladim wa nafaani illahu wa iyaakum bi ma fihi min al ayati wa dikri al hakim aqulu ma tasmaun assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu